di la naan lambu tey bi noo ko gisee. waaw nee na trop kontaan naa trop waaw. waaw métti woon na daa mel ni de. waaw métti woon na kañ waaw day ñaan suñu borom rek. waaw ndax gisoon fi champion yi comme Gaskel. waaw Gaskel ñëwoon na fi waaw. nga war a finalo ak général Malika yaakaar naa. waaw dëgg la dëgg la kañ. waaw loo nar. waaw yàlla baax na yàlla suñu borom jàppale ñu rek dooleel ñu ba ñu am ndam si kawam. kon bonne chance bonne chance. incha allah incha allah. jaajëf jaajëf général Malika mooy finalu ni waaw général Malika. doom ndey armé. bu barak. waaw yaa waajal chef de ren bi wala. non ren moom dama ko bàyyi ak gars ren moom dama ko bàyyi ak gars yi naa deux ans jaarootul ma ci wane sama bopp. ndax li ma tey nga waaw tey a finalu am. waaw waaw waaw. waaw moo gisee. mbër la champion la di ñaan rek yàlla suturaal ma defal ma ndam ci kawam. di la naan lamb tey bi bari woon na ay champion ndax gisoon nañ fi ñoom kel Jami ñoom Pape Maron tey yàlla dimbali la nga bëre ba yegg si fii looy wax ñooñu. waaw di leen encouragé rek naan leen lamb nii la tey da ngay am suba nga ñàkk lii tournoi la fii kenn mënul kenn ñi fi daje ñëpp dañuy compétir te yàlla moo suturaal ñu dem final. waaw di la naan waaw di la di la naan mot buy nga am. waaw xam naa ko ragaluma loolu. ndeysaan jaajëf Baye Fall bi. jaajëf jaajëf. ci préparation yi final bi diggante général Malika doomu ndey armé bu benn barak ak Mod Pouy ñoo war a final fii ci Adrien Senghor ci préparation mystique bi di la naan lamb làmb amoon nañ fi ay champion comme Pape Maron doomu joyin bi ak Gaskel Diamé doomu Palmarin bi ay champion la ñooñu yaakaaroon nañ ne ñooñu tamit mënoon nañ ko jël mais l'homme propose je avec ci micro bi encore ci ambiance bi ne ko li ñag yi di naan ambiance à du jeex ak lum paalo borom Fatick doomu ndey Momo Ngom le fils de Ngom ñu ngi koy assuré macha allah la ji moom li ñuy naan absence d'amateur rek moo ko yàq mais gis nañ fi bëre gis nañ fi sécurité bu doy gis nañ fi am loo for foral jàmm rek waaw final baa ngi waaj taxaw diggante général Malika ak Mod Bouy ñu leen di présenté من أرنا بريسة نور مابتر ربك ببون بين فاتو سمودنا نبقامين إيميتا دونور سفيوة غنسل ولا برزتا سوفينان لتبين له مؤمن بايو لتبين له مؤمن المالكة Mamadou Pouy, Victor Numéro 2. Voilà, merci, Colombo Ergaï. sëgg nañu final bi diggante général Malika ak Modou Pouye waaw fii ci voie bi Boucar Dione plus connu de Boucar Reug Reug waaw ñu ngi lewatoo diggante général Malika ak Modou Pouye ci Leewtoo bu dig général Malika jiital tànk gauche Modou Pouye jiital tànk droite jàppante nañ waa dañ ko bëgg jeexal final du yomb foog mu diire mënul yomb mënul jeexee nii ci li ma gis mënul jeexee ti première jàppante waa général ang koy puus Modou Pouye mu ngi am ngem général am na ñaari ngem Modou Pouye am na ñaari ngem ñu ngay ndegeñante ci woy ba diig ba mbayang lum ak ci teg bu diig ba parlo de Fatick le tambour major de la nouvelle génération ah mbo général Malika yëkkati na ko Modou Pouye bañ na Modou Pouye suruxal na ko war na ko nombo war na ko nombo général war war na ko nombo général génn na da ngay jël avertissement général kon li ma waxoon dëgg la waxoon naa ne du ci première songante xam nga ñun nag dañoo xam làmb mënuñoo dëkk jaxaw judoo ci keppaaru Sicap Ñilassène Concorde Ñilassène Ngourbaan ne Ñilassène Lirou Diane bu Ñilassène Yékini bu Ñilassène Horaire Ñilassène Super Jamono bu Ñilassène lam nekk lu ñu xamul ñun dañoo juddoo ci làmb lekk ci xaalisu làmb moo tax fu ñu ci micro bi mën nañ leen wax sax làmb ci ni muy deme mais reporter amul droit boobu mais l'essentiel c'est que sûr et certain que waxoon naa leen ne combat bi mënul jeexee ci première jàppante ba daa ni Modou Pouye daa yëkkati woon loxoom kon général Malika am na benn avertissement waaw waaw nee na arbitre su su sifflé amoo droit continuer action du sama wax waxu arbitre bi waaw ndax damay bañ kuma mere waaw di ziar Cheikh Dioum depuis Dubaï Nangu di ma jàpp ma sax baaraam ma jàpp loo xam ne ñu ne baaraam laa jàpp a def jàpp loxo bi ñu ne baaraam bi laa jàpp daw ne di ma jox ay avertissement. kon avertissement lañ la bëgg a doy na wax waxaguñu dara waxaguñu dara waxaguñu dara. waaw Modou Pouye. ah daan nañ général Malika ci avertissement waa Mod Puy ah. waa mais ñaaw na trop lii mën naa ñàkk ñun ay sportif lañ ñu jàppante ci biir bëre mu ne damaa jàpp baaraamam ñu jox ma avertissement dem fee gars yi disqualifié ma lii dafa ñaaw. waaw mais yéen pourquoi pas. final day am recours. final waaw non mais mais luy loolu sax mais bu fekkoon li ñu wax dëgg dañ maa war a jox avertissement mais mosoo am ko wax dañoo jàpp baaraam ñu dem disqualifié la. lii dafa ñaaw quoi fan lañ mës a gis ci làmb.

noo gisee final bi yaag général Malick. waaw bilaay soo sama baaraam bi la jàpp boo ko damm quoi ah, bilaay. ah ok kon yow da nga da ko daan ci avertissement. avertissement waaw amoon na ñaar quoi amoon na ñaar avertissement. ah dafa amoon ñaari avertissement. waaw léegi à mu jàpp sa baaraam. mu jàpp sama baaraam bi yes. bëgg ko damm <laughs> waaw bilaay soo doo so rek bi la. mbaa ngaa ñëwoon waaw di la encouragé rek di la naan mbaa yaa ngi prépara waaw maa ngi préparé waaw bilaahi. Euh, chef de l' état bi maa bu baax bilaahi. di di la naan bonne continuation gis nañ ne yaa ngi compétir. incha allah waaw maa ngi kaw bu baax maa di la naan xam nga équipe yi ngay fekki. waa xam naa le mu baax waaw. yaakaar naa équipe Fatick bi. waaw waaw Fatick waaw dégg naa Fatick bokk nañ ci priorité yi comme ñi ñuy naan euh, bokk nañ ci favori yi. bokk nañ ndax Fatick moom à chaque fois rek dañuy gis ne. affaire bi amul équipe bu ndaw.